talaata juróom-ñaari fan ci weeru mai atum 2019 ji ñu nekk yamook benn fan ci weeru koor di sëhru ramadan al te saa suñu waxee koor xel yi dem ci njabootuk maam cheikh ibrahima fall lamp babil muridina premier jouru koor sëriñ cheikh fall mbawar moom sëriñ aliou fall mbawar moom maam cheikh ibrahima fall lamp babil muridina ci këram gi nekk ci paaleen mbooloo mu bari ñoom ñoo fa dajaloo sol seen ay digisement di togg li nga xam ne mooy ndog yu ñu war a yóbbul cheikh mohamadul muntaka ibnu cheikh mohamadul bachir mi nga xam ne yàlla teg tey mu toog toogaayub cheikhul xaddim moom sëriñ cheikh fall ca njàmbaar ga ca pas-pas ba ca taxawaay bu am solo bi nga xam ne ràññee nañu ko saa su nekk ci liggéeyub sëriñ bi ak pas-pas bi mu ci àndal loolu yi tax moom sëriñ bi bi ndog yi noppee bi 18 heures di jot ànd na ak taalibe yi génn tox ci penc mi ànd ak ñoom gunge leen ba tolloog ci kër sëriñ Abo Mbàkke baraka ibnu Cheikh Mahamadinil Faadal moom sëriñ bi foofii la dëppee delluwaat ci barab bi bàyyi taalibe yi ak doomam yi tedd yooyu le ngir ñu jël ndog yooyu le yóbbu ko ci résidence Khadim Rasoul seen mbokk Arouna Cissé ak Alaaji Gora Seck ci Paleen kër Serigne Cheikh Fall Mbaw ci premier jour koor di sehru Ramadan al Mubarak ci ndogu yi am solo yoo xam ne Serigne bi moo ngi koy amal ah,